sëriñ bi doon sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu bokki taalibe yëpp ak bokki jullit yëpp fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitti réew mi. da leen jot li ñu yóbbu Cheikh Mouhamadul Mountakha muy sun kilifa nun taalibe sëñ Tuubaa yëpp. Mountakha mi ngi leen di sant di leen gërëm. fan yi dégg ngeen jottali woon fi ndigal ngir ñu jàng alxuraan sëriñ Mamor jottali ko ñu jottali ko ci àdduna sëpp ñu jàng alxuraan dellu ci sunu borom jàng xasida tuub gën a ñaan sunu borom yërmandeem gën ko ñaan mu jëlee fi mbas mi. ginnaaw bi mu yónni sëriñ Basiru moom sëriñ Abdou Khadir ngir mu ñu fàttaliwaat ñëpp. bokki jullit yëpp bokki dëkkandoo Sénégal yëpp ci ñu gën a wattandiku rek ngir lii fi suñu borom andi buñ gënee wattandiku te gën a ñaan suñu borom suñu borom mën na ko fee jëlee ci yërmandeem waaye wattandiku it bokk ci jaamu yàlla loolu sëriñ Basiir waxoon ci lam ci doon nag sëñ bi yónni waat nu lim nu ci mook yónnent yooyu rek ñoo bokk lépp ci liggéey bi rek lay dellu ak nuy gën rafetal doxeenu liggéey bi ak nuñ koy gën a àndandoo ba nga xam ne leen lu ci nekk danañ ko jaarale ci yoon boobu war a jaar lépp mën a yomb lépp mën a rafet te mbir nag gis ne ginnaaw wéradi gi demee na nii ba tax njiitu réew mi waxaat ne nañ am barab yi mu gën a méttee nañ wattandikoo téye war seeni tànk bu guddee te muy région Dakar ak région kon sëriñ bi nag ñun itam danay bàyyi xel rek ci lépp luy gën a rafetal doxin yi lépp te sëriñ bi ni mu koy mu jëlee moom day wax ne lépp jàmm bindee fi rek la bëgg lépp lu tax ji bindee fi am jàmm lépp lu fi jële mbas mi loolee ma di ñaan moom ci barkeb sëriñ Tuubaa mu jëlee ko fi waaye di digle nag ñuy wattande rek ni mu ko daan waxe dellu ci suñu borom ndax wattandi ko dolli ji wattandi ko boobaa ci jaamu yàlla lay bokk wattandi ko nag mooy ñi nga xam ne ñooy ŋànk mbirum saayir si waxaat mbirum waa kër docteur yi ñi ŋànk mbirum wér gi yaram yi lañ seet ba ne lii mooy may jàmm ñu wax ko kilifa yi ki jiite réew mi wax ko nañuy bàyyi xel ci loola moo tax sëñ bi waxoon ne mbooloo yi nga xam ne dañ daan ñëw di siyaare si di andi ay daayira ak lu ñu demee ma bëggoon loolu ñu dakkal ko ab diir rek te ñaan lépp daal di woyof bañ mën caa delluwaat mu ne daa bëgg aju ajuma ginnaaw suba jii di le ba aju ma ji delsi di quinze delsi waat di vingt deux ñaari ay bis ñu dakkal ko daayira yi ba mu lépp gën a dal ñu tàmbalee huit ba le vingt deux kon képp koo xam ne yaa ngi yorub daayira te doon waaj di bëgg a ñëw xam ne sëriñ bi nee na nañ noppalu diggante boobu bañ weesu ñaari ay simis ñu ñaan suñu borom woyofal ko bu woyofee rek ñu ma dellu ci liggéey ba ndax xam na ne liggéey boobu mooy seen yitte mooy yitte moom itam daje gi ngeen di daje di dajale addi sëriñ Tuubaa di ko yët Serigne Touba moom it mu leen ko delloo ci liggéey bi Serigne Touba loolu yéen ji ngeen ci am yéen ak yéen a jëm ci am moom kenn ku nekk xam na ne la ci yéen yi daje mooy ñu mën a wéyal liggéey ba kon sëñ bu ne nañ ko noppal ay fan bëgg nu mu gën a baaxe rek bëgg nu mu gën a rafete rek git nu ca ñëpp mën a jaare ci yoon woo xam ne moo nuy may jàmmono ñëpp loolu rek la sëñ bëgg kon nañ ko dégg noonu te jàppe ko noonu ku yoroon ab daayira daan ñëw nañ ko daan defee rek man nañoo no mu ñëw fekk ñaari ay bis ba ñaari ay bis yi jeexee balaa kenn ñëw nga téléphoné waat ne numéro yi di yëpp am nañ ko biñ téléphoné waatee la sëriñ bi wax ne ci jaar boobaa danañ ko wax ñëpp jaar ci waaye amule ajuma huit ji daal ba ajuma vingt deux daal nañ noppalu dal te déglu ndigal te ni bokk nag ñu ko waxee woon rek dellu suñu borom di ñaan rek di ñaan nga moom moo ciy jiitu suñu borom waaye fal mbas mi jëlal ko fi def fi jàmm ba kenn nag kenn ku ne nga a doxee sa digg sa borom sa digg sëriñ bi nga mën koo doxe noona te doo am benn gàllankoor bu lay gàllankoor ci saahir ak ci baat loolu rek la ñëpp ba kenn ku ne nga àggale sa yéene yàlla na ko sëriñ Tuubaa nangul sëriñ Tuubaa sun day gàttal ndoog taw feexam sun bi yëpp yomb sun lépp yéwén sun lépp barkeel nu ànd liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp delluwaat suñu borom di sàkk ngërëmul suñu borom ak ndimbalam ak yërmande jërë ngeen jëf loolu la sëñ bi santaane woon ñoo ko ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon